salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di baalu àq ñëpp di jaalale loo xam si ne moo ci réew mi te neexuma ak loo xamante si ne mooy am fii Sénégal parce que man actuellement bu dee pour man injustice bi dafa bëri ci dëkk bi quoi da ngay gis koo xamante si ne dañ koy tooñ sax toj ko wala mu tooñ après buñ xoolee. moom mi tooñ la ñuy jox dëgg ndax injustice ta loolu dafa metti parce que yow maanaam yow sa droit sax doo ko ñemee kii si à cent pour cent quoi nga nga xam ne yow lii nii mooy mooy yoon lii sa devoir la sa yoon nga nekk ngay wax ak nit mu leer na naa ni moo la ëpp pouvoir doo ñemee wax normal quoi parce que lan moo la ëpp doole wala moo la ëpp xaalis wala genre te loolu normalement kii bi moo ñu ko war a fayal quoi président bi ñun nag moom maanaam am nañ ay yoo xam si ñun ñoo ko war a mën a defal suñu bopp ñun population bi parce que buñ nee changé nañ président changé nañ lii wala changé nañ laa rek sa veut dire que ñun dañu war a am wala il faut ñu liggéey pour mën a am pour mën a def dara pour mën a denc dara parce que euh, nu ma ko mën a waxee mooy maanaam euh, président bi dañ ko jiital rek pour mu tegal ñu réew mi ci yoon circuler affaire yi xaalis bi ni mu doon circuler boo xoolee circuler tu ko parce que ñun ñuy jaay fii dañu dañoo xam loolu parce que bu njëkk nit dana romb nii rek xool jaar nii rek gis benn daal mu neex ko mu gaare ñëw jënd waxaale bi sax du metti da ngay accéder dagg prix fat fat mu fay nga dem léegi day metti quoi da ngay gis koo xam si ne da jënd jënd daal carrément moo ko tax a jug gaaleem mu dikk ba yegg si da ngay wax da ngay waxaale ba sonn parce que lan boo amul la dëkk bi dafa dëgër alors ko fépp la mais nag jeunesse bi moom li ma leen di dénk mooy. ñu ñu nangoo liggéey quoi nangoo fight parce que liggéey am na ñu ne liggéey taxut am mais bokk na ci lii tax am quoi parce que sabablu la boo defee li la war rek am li la war te ku muñ muñ dana metti nag mais au début mais sa gérer rek dañ koy gérer quoi euh, deuxième bi mooy euh, injustice moom wax naa ci mais dafa metti quoi parce que yow yow maanaam da ngay dox nii mu leer naa ñu dëkk bi nekkul en sécurité parce que yow bo ben heure bi instant da ngay am soxla par exemple nga xaw am millier amna na yoy deuk da nga am soxla ay zéro heure yoy non rek mais do man guen parce que sañ ko parce que boko defé dalay indil plaignant quoi parce que man nga guen ñu agréger la voilà agré gi nim fi mel bari na fi ta amna yaakar nak même bu dee du 100% amna yaakar ci président bi parce que man pop topp ma ko procès rek la dégg ni pour mëna baye xel ci mom parce que réew man sama xam-xam bu gàtt yaakaar naa ñett moo koy doxal quoi bay bu doxee buñ bayee di dundee ba pare commerçant yi gis seen bopp sàmm yi gis seen bopp ci dëkk bi rek am naa yaakaar ne bi day développé quoi ah ñu yokk góorgóorlu parce que nekkul loo xam si ne day xëy xëy rek sotti dana metti mais ñu koy ñaanal yéen bi oyof quoi parce que Sénégal ak ni mel nii yëpp ak injustice bi fi am dafa metti quoi. te am nañ yaakaar nag ci moom pour mu saafaraal ñu loolu mais man ak man sama jëmi boobu moom li ma yaa yaakaaru bàyyi ma xel dara ci président bi quoi parce que pour sama wàllu am-am man na ma seel teel sama sécurité te loolu mooy yoon sax ñun population bi ñu dénk ko ko mu teel ñu suñu sécurité ah, doxal justice bi mu dox normal dëkk bi am sécurité étrangers yi ñuy fay parce que neexul tamit da ngay gis ko xam si ne maanaam day ñëw. ci biir dëkk bi loué kër benn boutique boutique bi ñu loué du fay du fay état quoi dina fay boutique bi nag mais du fay état bi quoi te léegi moom boutique bi si lay dëkk ci lay fanaan fi lay yendu te moom te loolu dafa metti quoi parce que ñoom bu ñu ñëw te yow seen dëkk boo fa demoon tey da ngay fay loolu amul sax lu ñuy xalaat wala lu ñu kii normalement étranger bu fi dikk dafa war di man di fay. même ñun jurul sax ñu leen di génnee dëkk bi mais nañ fay rek ndax buñ fayee dinañu amal importance quoi pour man loolu lu ma gën a metti ci la bokk quoi.